bonsoir salaamaaleykum mbokku déglukatu réew mi fm dal leen ak jàmm seen euh, émission sans filtre di jotaay ndaw ñi fii ci réew mi fm lay amee euh, mercredi bu jotee 15 heures jàpp 16 euh, heures tey ñu dalal comme niñ ko tàmm di defee depuis du ma ne sax depuis début campagne bi may yàgg nañ di promouvoir les jeunes talents Euh, maanaam jeune candidat yi nga xam ne ñooy dem ci jongante élection locale yi ñu dem tey ñu und ànd ceeg Mamadou somb euh, moo di secrétaire administratif euh, du ministre du commerce Aminata Assome Diatta par rapport à ses activités politiques nekk candidate coalition Benno Bokk Yaakaar commune Kër Massar Nord ñu dalal itam Malang Sané mouvement And Defar Kër Massar de la grande coalition Gëm sa bopp Kër Massar Sud derrière le candidat le sénateur Amadou bari ñu fas yéene waxtaan seeni programme ak bilan activité yi nga xam ne ñu ngi ko defal depuis euh, début campagne bi euh, di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy suivre suñu direct Facebook ak suñu page YouTube di gërëm Léon ak euh, Malick ñi nga xam ne ñoo nekk ci régi bi ak ci cabine technique bi Mamadou Samb maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoon teg mbokk auditeur ak auditrice Rewmi FM. merci beaucoup Sylvie maa ngi nuyu di sant di la gërëm bu bi. Mm-hmm. di nuyu tamit sama grand sama co-débatteur monsieur Sané di sama collègue donc di nuyu tamit euh, waa réew Rewmi FM yëpp di nuyu waa Kër Massar bu baax a baax rawatina euh, donc euh, madame la ministre Assome Aminata jaata donc mm-hmm. di la candidate benn Bokk Yaakaar Kër Massar noor maa ngi ko nuyu di ko ziar bu baax a baax di nuyu staff bu mu àndal ñëpp ak tous les membres de Benno Bokk Yaakaar merci beaucoup d' accord ma jox kàddu gi Malang Sané mouvement And Defar Kër ma saar bu coalition gëm sa bopp am mbégte kontaan te dalal la suñu plateau Malang ma bàyyi la nga ñëw teg mbokk déglu yi. waaw merci Sylvie donc ñu ngi kontaan trop di participer ci émission bi donc di remercier di nuyu aussi moom du Sam sama frair sama collègue euh, ñu bokk Kër Massar dara ñaawul di di nuyoo Léon ak Malick ñi nga xam ne ñoo nekk ci bi. Mhm. di ñaan suñu borom moom mi nga xam ne moom moom lépp moomun lépp. Euh, yàlla kaddu yi ñu fiy yëkkati nekk kaddu yoo xam ne day nekk njëriñu askanu Kër Massar. Mhm. nord ak sud wala département même de de Kër Massar. Mhm. di def benn petite précision rek parce que dañu nekk à quelques heures quelques jours des des élections mhm. que ne man je suis de la grande coalition. gëm sa gëm sa bopp tout court mouvement yëpp léegi dafay nekk ci ginnaaw c'est la grande coalition gëm sa bopp seulement qui qui qui qui d'accord euh, di fàttali mbokk déglukat yi donc euh, suñu numéro serveur 88 628 84 84 88 628 85 85 88 628 86 86 nga bës 1 ci waxtaan wi ngeen bokk euh, donc euh, sans tarder dañuy ñëw ci seen euh, programme candidat parce que yéen ku ci nekk daa am candidat bi nga xam ne moom nga fi toogal Malang yow yaa nga fi toogal sénateur Amadou Bari Mamadou Samb moom mu fi toogal Aminata Assome Diatta. ma commencer par du Samb euh, lu tax nga jàpp ni ASSOM mooy euh, meilleure candidature pour euh, Kër Massar Nord. merci Sylvie jërëjëf maa ngi rafetlu bu baax a baax question bi am na solo te dinaa ci am cawarte tontu ci bu baax a baax que dem la ministre asom Aminata Diatta la candidate de la coalition benn Bokk Yaakaar mooy le meilleur choix des Massarois lu tax mhm. ma jàpp ne moom mooy le meilleur choix c'est parce que moom mooy ki nga xamante ne mooy ñëw indi changement def une rupture dans sa démarche politique à Kër Massar taxawu askan bi euh, di leen di jàppale fekk tey ñëwagul parce que madame la ministre comme ni ma ko waxee rek moom mu ngi démarrer ses activités politiques depuis 2018 euh, à Kër Massar mhm. booba léegi mu ngi jege askan bi donc di jàppale askan bi di taxawu askan bi di xëy vraiment di leen di taxawu seen ay soxla kooku nag tey jii nii Euh, li mu def ci en tout cas action sociale biir Kër Massar moo tax tey vraiment ñu jàpp ne c'est le en tout cas c'est le meilleur en tout cas c'est le meilleur choix pour les Massarois donc euh, voilà peut-être bu ñu duggee ba ci biir euh, dinaa la wax kan mooy madame la ministre ak lan moo tax ñu ñu tànn ko. Mhm. action sociale yi ngay wax mën nga ma ci limal quelque. waaw action sociale yi. wala est-ce que action yi dafa yem Kër Massar Nord. non yemul Kër Massar Nord madame la ministre moom muy jàppale ñëpp lay jàppale muy sud comme nord ndaxte moom dafa nekk ki nga xamante ne euh, voilà mën naa ne waa Kër Massar vraiment euh, ñu ngi koy bàyyi xel euh, ci action yooyu noonu donc bu ma waxee ci côté mbënd bi donc vraiment def na ci jéego yi am solo mu ci sud bi comme ci noor bi mm-hmm. donc bu ma waxee tamit vraiment ci euh, côté jàppale vraiment jigéen ñi par rapport en tout cas seen ay formation seen ay financement fekk tey ñëwagul daan jàppale jigéen ñi bu baax a baax ba ci ndaw ñi mm. ba tey jii ni si action fu ñuy waxee ni à l'instant tey tey tey fu may wax ak yow nii mu ngi jàppale euh, jumaa yi les mosquées de de de Kër Massar surtout côté nord bi aussi parce que mm-hmm. actuellement elle a un objectif de cent tonne de ciment yoo xam war na ko mën a jox en tout cas les mosquées en tout cas du nord actuellement def nañ joxe nañ en tout cas 45 tonnes euh, à Boune donc euh, tey jii nii normalement commission bi war na dem aux Parcelles Assainies de Kër Massar Nord waaye madame le ministre rek pour tënk par rapport à ces actions sociales yi muy def pour waa Kër Massar ñëpp la koy defal muy sud bi comme ci nord bi. ba tey mu ngi ci église yi ndaxte euh, defal na vraiment am na taxaw bu mat a mat ci ci côté diine bi muy ci jumaa yi comme ci église bi donc euh, waa église bi. xam nañu tontu ciment yi ma fi dégg yëpp ci jumaa ja lañ ko jagleel dégguma dara loo xam ne jëm na ci jàngu ji. <laughs> église bi vraiment Sylvie madame ministre am na ci taxawaay bu am solo ndaxte euh, defal na leen teraanga te euh, yow am na loo ci xam parce que seen paroisse boobu dem na fa ak ñoom euh, je de passage monsieur Gabriel Tine ak mhm. Aristide ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu ay répondant foofu mhm. madame ministre yàgg na am taxawaay bu am am solo ci mhm. côté église bi ci wàllu diine madame la ministre wax dëgg yàlla nekkul lu muy caaxaane côté diine ndaxte barki démb mooy Ndiaye donc le en tout cas organiser benn sargal. Mhm. boo xamante ñu ngi ko tubbee euh, sargal tàggkatu Seydina Mouhamed yi donc wax dëgg yàlla. côté diine moom ma mhm. madame la ministre euh, bàyyiwu ci loxo mu ngi ciy def bu baax a baax. d' accord danaa ñëwaat ci yow. <laughs> Euh, Malang. Mhm. yow grande coalition gëm sa bopp nga nekk ginnaaw waaye laataa man nga may wax seen choix ci yow lu tax yow nga nekkoon candidat. sa candidature lu tax. Sylvie laaj nga ma question bu ma neex a neex a neex. Mhm. c'est vrai candidat la woon mais man dama bokkul ci ñi nga xam ne dañu jàpp ne dañu teg gato bi au niveau de Kër Massar Sud ku ci nekk bëgg ci jël la plus grande portion bokk na ci li tax ma ma désister ci sama candidature bu waral ne ma dem ànd ak le sénateur du bari pour jàngee ci moom sur le plan politique et sur le plan de la gestion de la collectivité territoriale parce que li ñu bokk suñ ko xamul mënuñu ko gérer mënuñu ko yor loolu moo gën a motiver ñu dem ranger wu ci la grande coalition parce que nag bëri woon na coalition yoo xam ne ils nous sur leur liste. Mm-hmm. jot jot sax ay propositions yoo xam ne des propositions yoo xam ne vraiment euh, yu yu yu yu jéggi day yoo xam ne fu ñu fa nekkoon position bi ñu am dafay dafay dafay bu nekkee position mu ñu intéressé bien ñuy jox benn aura. Hmm. mais ñun xooluñu position xooluñu xaalis xooluñu du duñu ñu achat de conscience xam luñu gëm ki nga xam ne il a une bonne vision pour Kër Massar Sud. ki laa xam ki nga xam ne il a de bons projets pour Kër Massar Sud ñu dem rangé wu ci moom par rapport ak fi mu bëgg a yóbbu Kër Massar Sud et par rapport à notre avenir sur le plan politique notre carrière politique nit ñi sooy ànd ak nit. nga bëgg def politique politique laa wax. Mhm. da ngay dem ci la bonne école et la bonne école ce n'est rien d'autre que le sénateur c'est pas pour rien qu'on l'appelle le sénateur Amadou Baye te damay sax extrapoler dem ci li nga laaj sama sama frère Mansour. du Sam euh, profil xam naa di nga ñëw ci profil damay damay anticiper question bi. Mhm. sénateur Amadou Bari est le meilleur profil sénateur la la woon. il fut deux fois député 2014 on avait 24 listes dans Kër Massar c'était pas Kër Massar nord ni sud c'était Kër Massar en général 24 listes sur ces 24 y a que le sénateur Amadou Barry qui revient en jeu moom rek moo nekkaat ci géewu politique bi ñi daw nañ ñi banañ kenn moo fa nekkoon kooku dem na département mooy le maire Moustapha Meng donc ana ñeneen et parmi ces 24 là il y avait des gens yoo xam ne ils habitaient pas Kër Massar ils habitaient pas Kër Massar damay jël kenn rek moo la waxee Ravin rek sa xel xam na ku mu war a jëm. Mhm. boîte de nuit Ravin. Mhm. c' est des gens qui étaient venus à à Kër Massar en mhm. pour jël mairie bi demaat seen yoon heureusement que les Massar waa étaient un peu ba amuñu dara ñu delluwaat seen yoon. donc euh, kooku mooy sénateur Amadou Barry li tax ma ne si mooy meilleur profil bi. il fut le rapporteur national du budget ku mu voté lu sa budget sa budget du dem plénière mm-hmm. moo représenté woon Sénégal ACP Union européenne Afrique Caraïbes Pacifique ça fait cent six pays toutes les décisions yoo xam ne Sénégal engagé na ko. loolu lépp dogguma la maanaam dama lay wan li tax ma ne rek moom mooy le meilleur mm-hmm. profit. Mm-hmm. tout ça là c'est bien loolu li mu def yëpp mais lu mu def Kër Massar ba nga jàpp ni. c'est le meilleur profil. pourquoi pas yow mi. waaw man xam nga wax naa li tax man. ma ne la. déedéet je sais wax nga mais lan nga jàpp ni moom la def Kër Massar Sud ba tey waa Kër Massar war ko sànni. dama dama la ci wax benn benn bu concret après ñu dugg ci ci suñu programme. dama la ci wax benn bu concret. non programme nañ ci ñëw après la. moo tax man dama la ci wax benn bu concret xam nga tey jii Kër Massar ku ko wax wax insécurité te insécurité am na loo xam ne euh, c'est du ressort du maire sa fait partie des compétences am na yoo xam ne c'est des compétences transférées éclairage public yi. Mm-hmm. sur un temps record. Mm-hmm. on a éclairé pas mal de quartiers sur les cinquante et un de Keur Massar Sud. on l'a on l'a fait sur un temps record am na boo xam ne sax dañu fa def un samedi waxtaan def proximité. Mm-hmm. wax leen lu seen problème ñu ne ñu éclairage le dimanche man maa bokkoon ci équipe technique bi doon def lampe yi. loolu du social loolu. c'est des choses yoo xam ne maire bi fi nekk moo ko waroon def. te ñun falaguñ ci ñu ngi koy def. waxuma la nag jàppale yi nga xam ne ñu koy jàppale sur le plan social bourse yu ñu jox élèves yi xale yu ñu dimbali ñu jàngi étudiants yu ñu dimbali mm-hmm. personne ressources yu ñuy assister personne diminuée yu ñuy assister mm-hmm. et que c'est quelqu'un que est trop proche de sa population mm-hmm. très proche de sa population amul lépp luy xew ci benn cité Kër Massar où tu ne vois pas la, la personne de sénateur Amadou Ba donc loolu moo bokk ci vision am li tax ñun ñu jàpp ne gëm ne c'est le meilleur profil am na solo profil bi yanj na macha allah comme bu Aminata Assome Diatta daa mel ni profil yëpp a yanj <laughs> ma ñëw ci yow nga ñëw ci seen programme de campagne bi waaw donc euh, waa Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar commune Kër Massar Nord waaw suñu projet municipal bi nag avant ñuy wax ci projet bi dafa am lu indi projet bi li indi projet bi du lenn lu li ñuy wax woo woowee le dialogue de Kër Massar waaw le dialogue de Kër Massar loolu madame la ministre moo ko créé moom danga moo ko créé d'ailleurs fépp foofu ci Kër Massar. Mhm. dialogue de Kër Massar mu am mu amoon benn ambition benn but central mooy dajale toutes les couches massaroises waxtaan ak ñoom par rapport ak seen ay jafe-jafe yi ñuy dund. dialogue Kër Massar boobu noonu moo indi ay rencontres sociales avec tous les acteurs les commerçants les artisans le monde sportif et culturel. Mm-hmm. les femmes la jeunesse les étudiants donc tout le monde tout Massarois ñu waxtaan ak madame la ministre par rapport ak seen jafe-jafe ba pare nag proposer ay solution yoo xamante ne su ci sukkandekoo mën nañu indi ay saafara ci jàngoro yooyu. loolu moo jur son projet municipal donc projet bi nekkul projet boo xamante ne dafa tëju ci biiram rek bind ko wala mu nekk ci biir néegam bind ko waaye dafa ci waxtaan ak askan bi diisoo ci ak askan bi mu jëlee ci ay orientation ba tey ji mu indi son projet municipal mu nekk nag projet boo xamante ne bu am solo xam nga débat bi lu muy bëri bëri bëri man damay ne wax ji projet bi la le projet municipal du candidat parce que tamit loolu mooy mbir mi mooy wax ci mooy askan bi fan la ñuy xaar lan askan bi di xaar ci kii nga xamante ni mooy laaj baatu askan bi donc madame la ministre nag dafa def liggéey bu am solo par rapport à ça tey jii nii loolu mooy indi son projet mu nekk projet boo xam da ko euh, tracé ci ñaari phase mhm. benn phase bu njëkk bi mooy par rapport avec les euh, en tout cas dix action prioritaires yi nga xamante ni euh, téye na ko bëgg ko en tout cas réaliser dès les cent premiers jours bu ko yàlla joxee mairie Kër Massar Nord mais ci biir loolu am na lu ma fàtte mooy madame Ndoye dafa indi une rupture dans sa démarche parce que dialogue Kër Massar boobu dafa ñëw indi li ñu wax les meetings dialogués. Mhm. meeting dialogués Sylvie mooy madame ministre day dem ci benn koñ jàkkaarloo ak askan bi dafa mel ni point conférence de presse. askan bi ñooy journaliste yi madame ministre ñoom ñooy posé question bi madame le ministre moom mooy tontu. mooy tontu li ñu loolu la ñuy tuddee dialogue meeting dialogué. Mhm. moom moo ko indi foofu ci Kër Massar. bi ñu paree loolu mu indi en tout cas euh, un pacte signé avec en tout cas les artisans après pacte boobu noonu la jeunesse après la jeunesse les femmes loolu tey jii nii boo xoolee récemment le quinze passé la organiser benn cérémonie de signature des contrat avec les délégués de quartier par rapport. aux attentes des des des Massarois donc vraiment mooy si les dix actions prioritaires yi nga xamante ne nas na ko bëgg ko réaliser dès les cent premiers jours yéemu ci waaye dafa daja dale dajale délégué yépp mu ne dañuy signer contrat boobu noonu pour xamala dafa jël engagement bu sérieux engagement boo xamante ne vraiment pour mën a euh, wuyu les attentes de Massarois su nekkee temps may ñu ko ba tey mën nañu xuus par rapport si ces dix actions prioritaires yi nga xamante ne téye na mu nga si ñëw rek de façon bref. façon bref les dix actions prioritaires bokk na ci Kër Massar nord vers zéro déchet parce que Kër Massar moom bëgg na de les cent premiers jours Kër Massar nord mu nekk commune boo xamante référence lay doon commune boo xamante bu neex a xool bu neex a doxantu la. waaye nag commune buy set tamit ndax ndaxte set dafa nekk lu am solo. Mhm. environnement dafa war a set dafa war a sell. nee na dès les cent premiers jours bëgg na vraiment Kër Massar Nord doon commune boo xam ne bu set lay doon. wax na aussi par rapport tout simplement eau potable pour tous ndaxte Kër Massar am na gox yooyu dem Sylvie robinet sa amuñu ko nee na incha allah dina fexe dès les cent premiers jours. mu fexe ba képp ku yeewu Kër Massar Nord nga am ndox bu sell ndox bu set ndox bu doy. Mhm. nee na aussi une commune sûre. c'est-à-dire mhm. sécurité boo xamante ne dina fexe lamp yi mat. lamp yi mhm. doy ba mbedd yi mën a am ay caméra de surveillance. loolu tamit nee na vraiment. Euh, bëgg na wax dëgg yàlla dès les jours lu mu signalé ak délégué de quartier yi la. da ko signé da ko xaatim signé ko nee na dès les jours dina ko dina ko dina ko matal incha allah. Euh, wax na aussi Euh, taxawal ndaw ñi ndaw ñi faw ñu taxawal leen faw ñu accompagner leen ba nga xam ne dañu mën a gis seen bopp ci biir commune bi wax na aussi un quartier en jege en quartier en jege mooy quartier bu nekk dina am benn point bu ñu tuddee point jege point jege bi nag njëriñ bi mooy képp ku yeewu ci quartier ba lépp loo soxla ci formation loo soxla ci information loo soxla ci financement lépp loo bëgg xam rek boo demee ci point jege boobu di nga ko fa mën a am nee Euh, taxawal en tout cas dooleel mag. waaw mhm. dooleel mag dafa nekk lu am solo nee na mag ñi. Mhm. seen xam-xam seen expertise. dañ ko mhm. war a utiliser. waaye nag il faut ñu dooleel leen. ñu taxawu leen ba su ko defee li nga xamante ne moo nekk ci ñoom ñu mën ko ñu mën ko am. en euh, en résumé lii moo nekk vraiment eh, des mesures en tout cas prioritaires yi nga xamante ne. moom taxawu na vraiment pour jàppale askan bi par rapport à ces attentes là mu am yeneen soixante mesures phares yi nga xamante ne si biir quinquennat bi mhm. bëgg na vraiment euh, réaliser ko en tout cas en grosso modo mhm. moom son en tout cas euh, son ambition li nga xam moom la namm ci Kër Massar Nord mooy fexe mu doon référence képp koo xamante jóge nga bitim réew boo ñëwee en tout cas Sénégal balaa ngay dugg sa kër di nga jaar Kër Massar nga visiter ko pare dem dugg sa kër. waaw lu mes li moo nekk. vraiment rafet na mhm. programme bi nga xam ne moom ngeen jàpp ni di ngeen ko régler dès les cent premier jour mhm. euh, di ponk yi am na solo mais gis nañu Kër masaar commune la woon laata mi doon département. Mhm. Euh, ku ko jiite woon di Moustapha Manga euh, bokk ci benn bokk yaakaar. tey askanu Kër Massar yëpp à l'unanimité jàpp nañ ni def fa dara tey foo taxaw ni Moustapha Mbengue sa ba matul yow dañ lay dóor tey Assome Diatta euh, di ministre du commerce moom it bokk ci Benno Bokk Yaakaar di laaj ñu jox ko commune ndax yaakaar nga ni sénégalais dinañ ko wóolu ndax gis nañ Moustapha Mbengue Benno Bokk Yaakaar la bokk gis nañ li mu def Kër Massar ak li mu deful Kër Massar tey est-ce que yaakaar nga ni sénégalais dinañ wóolu Assome bi nga xam ne moom ak Moustapha Mbengue ak jiitu réew Macky Sall ñoo bokk Benno Bokk Yaakaar ba dem ko seen commune. merci beaucoup de passage ñu ngi euh, félicité di nuyu bu baax son excellence monsieur le président de la République Macky moom mi nga xam dafa ñëw en tout cas affirmer en tout cas le choix des wa porté sur la personne de madame Miss Assome Diatta jël récépissé jox ko pourquoi mu affirmer ko parce que waa Kër Massar ñoom ñoo njëkk taxaw ne madame la ministre mooy seen choix mooy seen candidat def ay conférence de presse moom je rappelle madame la ministre mooy la seule personne ou la benn leader bi nga xamante ne fii dans l'histoire politique du Sénégal ñu investir un leader à son absence asom rek moo ko am biir Kër Massar waa Kër Massar ñoom ñoo organiser seen point de presse à son insu ñu ne asom mooy sunu choix mooy sunu candidat ñu pare ci loolu loolu c'était la c'était toute la société civile mm-hmm. bañ ci jógee les partis politiques les mouvements ñëpp aussi def la même chose après le son excellence ñëw jël récépissé bi ñëw jox ko ma madame la ministre muy confiance bu am solo di ko ci félicité bu baax a baax a baax a baax juumul ci choix bi xam nga madame la ministre damay faral di wax avant tey avant ñuy waxu élection moom dafa yàgg yëngu ci jafe-jafe askan bi mhm. dafa yàgg taxaw waa Kër Massar mhm. dafa leen yàgg soutenir tey jii nii moom xam nga tëbul rek naan dafa soxla mairie dafa dem ba ci biir mu gis ne les problèmes des Massarois sont sérieux te mu dëkk ci dëkk bi bokk ak ñoom dëkk bi di yeew ñoom biir Kër Massar am fa titre foncier am cité gendarmerie 2 guddi guddi Kër Massar mu ne ah lenn daal moom jàpp na ne mooy saafara mbir mi mooy dem jëli en tout cas la commune pour que ñu mën a taxawu. gën a am kon jàpp nga ni sénégalais wóolu nañ ko. Sénégal waa Kër Massar waa Kër Massar nañ ko à 100 pour Kër Massar Nord asom moo ko moom. te mu bokk kër ak Moustapha Mbengue. waaw xam nga benn bokk yaakaar la wax c'est la même famille ils ont benn kilifa lañ am unique mooy soo excellence monsieur le président de la Macky Sall. Mm. foofu problème amu fa amul comparaison c'est une seule famille l'unique famille de benn bokk yaakaar benn kilifa lañ am mooy son excellence monsieur le président Macky Sall. te madame la ministre Assomata Diatta dafa nekk ki nga xamante ne moom lañ am yaakaar que mu faj les de des Massarois mooy mu faj jafe-jafe waa Kër Massar te nee naa laata sa projet municipal la dafa yàgg yëngu di jàppale askanu Kër Massar pour terminer képp ku yeewoo Kër masaar nga dëkk Kër Massar sañ nga naan man xaw ma Assome Aminata Diatta waaye sañoo naan man du may dégg ay mbiram lam fa def kenn def fukk fa nekkul lu ñu créer lu am la. danañ ñëwaat ñu progresser laaj yi des na <laughs> Malang euh, seen programme euh, waa Gëm sa bopp ngeen ànd ak euh, sénateur Amadou Barry c'est quoi votre programme. waaw ñun dañu ñëw mosoon bokk ci ci municipalité bi def fa sax loo xam ne dans l'histoire de politique du Sénégal bu amee ku ko def it bariwul. parce que sénateur Amadou Barry dafa bokk ci ñi nga xam ne à l'Assemblée nationale ils ont voté la loi sur la parité conseil municipal benn at bi ñu waroon tabax biir Kër Massar ñu bëggoon salfaañe loi bi. Mhm. ñu bind def recours. sénateur Amadou Barry moo xaatim bind def recours mu jàll cour suprême ñu kase verdict bi. Mhm. ba Kër Massar. nekk maire boo xam mairie boo xam ne dañoo respecté parité donc ku fonk jigéen la ku jox cër jigéen la parce que euh, jigéen lu mu bokkul baaxul te jigéenu Kër Masar yi ay jigéen yu yu engagé lañ yu dynamique lañ looloo waral sax tête de bi jigéen la muy madame Ndeye bu Ndiaye ma koy nuyu de passage mu dëkk cité Castor Sotra mm-hmm. kuy wax collectivité territoriale. Mhm. wax projet comme ni ko Mamadou Sam waxe ku wax projet wax partenariat. sénateur Amadou Barry a mis sur la santé parce que Kër Massar euh, assiette plateau médical bi c'est pas tellement garni mu ne moom daf ñuy indil te indil nañu indil nañu plateau médical de niveau deux. indil mhm. nañu plateau médical de niveau deux je ci rajo laa nekk ci digital laa nekk Sénégal àdduna ñu ngi may déglu. Mhm. plateau médical de niveau deux la sénateur Amadou Bari indil waa Kër Massar Sud. avant ñuy dem département ñu ngi amoon centre de santé centre de santé boo xam ne pour nga faju tu vas faire la de six du matin à dix heures voire même onze heures ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk Kër Massar Sud. sur le plan euh, euh santé lu ñu am dañu am dis euh, district poste de santé Madame Ba ñu am Serge Brion ñu am clinique Tunkara privé mhm. privé ñu am di di poste de santé Maam Dior mhm. sur benn commune boo xam ne cinq cent kilomètres carrés la mhm. ñu ne loolu dafa doy waar dafa de ku feebar mënul faju donc sénateur Amadou Barry vision am d' abord mu visé ko ci santé mu andi nag projet un hôpital de un milliard cinq cent millions je dis bien un milliard cinq cent millions nga xam ne avant ñuy dem avant ñuy tas département notre notre budget eggul woon sax deux milliards moom am na budget projet boo xam ne budget bi c'est un milliard cinq cent millions et le coût durée bi c'est douze mois qu'est-ce que ça fait là-bas non seulement am nañ hôpital de niveau deux on a ça va créer beaucoup d'emplois parce que dañ ne emploi bi ñu ko jéggaani on a déjà euh, le contrat avec l'ONG benn ONG bu nekk euh, Angleterre boo tapé ci ci net bi après naa la jox site bi may bañ ñeneen ñi sama détracteurs yi ñu ñu coupe circuit ma cuté ma donc loolu c'est déjà acquis pour Kër Massar Sud je dis pour Kër Massar Sud bi ñu bokkoon Pikine département sax amuñu woon euh, plateau médical boo xam ne bi ñu leen proposé nii am nañ ko comment on l'a eu dafa am benn commune bu nekk Rufisque bu décroché woon ONG bi bi ñu décroché ONG bi ñu délibéré au niveau de du conseil municipal bi ñu délibéré fi ñu jàppoon ne fa waroon teg hôpital bi bi ñu eggee dañoo fekk ñu jaay terrain yi ONG bi ne leen moom du dugal xaalisam ak yëfam foo xam ne dafa am litige de la de vu la vision du du sénateur Amadou Barry foofu lañ mu a mujj jël décroché ONG bi andil ko Kër Massar Sud yamu ci loolu mu ne ñu que je les élections le soir du 23 janvier ñu santee ko yàlla nekk pour def pose première pierre bi. def délibération au niveau du conseil municipal su yàlla defee le contraire ñaanuñu ko yàlla bu yàlla defee safaan Kër Massar Sud moo ñor sénateur Amadou Bari ñu jël hôpital boobu ki nga xam ne moom la fi yàlla teg ñu ne ko am parce que il le fait pour Kër Massar Sud ça c'est par rapport à l'éducation mm. il y a aucun candidat de Kër Massar Sud qui a une vision d'hôpital amul vision la lañ am case de santé wala poste de santé ñun dépassé nañ cadre boobu parce que les Massarois ñooy feesal hôpitaux yi beneen bi c'est sur le plan de l'éducation d'autres se réclament les champions de l'éducation man ak moom Samb nous sommes de, nous sommes dans le milieu kenn ñu wax de éducation on ak un problème à Kër Massar le double flux existe à Kër Massar c'est à Kër Massar où on a euh, école élémentaire bu ñu tëj à ñu 2 boo xam ne kenn nekkatu fa yàlla na ma yàlla baal ma ci terme ay bujumaan ñoo fay ñoo fa nekk mhm. inondation mi fa foofu la ñu jëlee sax temps yi euh, taxi Dakar yi dañu ne Sénégal warul nekk à à l'heure là école boo xam ne nañu ko tëj ñu décroché ONG bi encore une fois par rapport au mot de l' dañuy réfectionner toutes les murs des écoles construire encore des tableaux parce que am na xale yoo xam ne ils s'assoient à six pour décongeler yenn classes yi mm-hmm. accompagner les écoles par rapport à une cantine scolaire parce que de nos jours les temps sont très durs di nga gis xale boo xam ne day yeewu këram du ndekki du añ bëgg a dem classe day nelaw hmm. donc ñun on va les accompagner avec des cantines scolaires nga xam ne les enfants vont pouvoir être en mesure au moins de manger quelque chose et de continuer leurs apprentissages pédagogiques mmh. sur le plan sportif bëri na ci candidat yi ma dégg ñuy wax waxu stade c'est vrai que sport Kër Massar croissance jeune bi dafa énorme quand tu ne de sport tu ne leur parles de rien du ñu gis ne candidat bu ñëw il te parle du, du forêt classée de mais forêt bi dañ ko classé c'est pas même de notre ressort et que forêt bi su le plan démographique le forêt n'est pas à Kër Masar il est à Mbao mm-hmm. bu nekkee Kër Masar Mbao la tudd Mbao la tudd donc il faut pas que nit ñi di nax population bi sur le plan sportif sur le volet sport la première des choses l'urgence c'est quoi la formation de cadres du sport parce que balaa ngay jàngal xale dara day fekk yow nga xam dara nga formé wu ñun sur première priorité c'est former tous les acteurs du mouvement associatif tous les acteurs sportifs on les forme d'abord créer des cadres des cadres d'épanouissement pour les jeunes parce que bëri na niche Kër Massar yoo xam ne ndox bi euh, nekk fa tellement mais nappe bi mooy yéeg di wàcc. Mm-hmm. on le prend on le on met du gazon synthétique parce que le gazon synthétique c'est très très accessible pour ñi xam ne mës nañ Europe dañ la koy sax may dafa génération yi ñooy wute donc loolu c'est un maire sérieux donc sur le sur, sur le volet sportif, on une large, et as, large assiette à, à, au niveau au, au, au Sur le plan environnemental, le sénateur Barry a créé les semaines vertes de Kermassar. Ni de Kermassar, danañuy dox cinq kilomètres 2 kilomètres du ñu gis garab te garab mooy doomu aadama garab mooy nit dangay ngay bëgg sax foo féexlu doo ko am dangay bëgg am sax gan bu jógee Mermoz wala Sacré-Cœur doo am foo ko teg parce que Kër Massar n'est pas verte ñun on va organiser des semaines vertes. Mmh. on va reboiser encore Kër Massar dans sa dans sa dans sa globalité. am na solo. est que vous me sur le plan social Kër Massar bu nekkul oui. vas-y vas-y bu nekkul gox bi nga xam ne moo ëpp calebasse. bokk na ci gox yi nga ëpp calebasse parce que li ma wax sànq rek les femmes massarois sont tellement tellement tellement battales. Mm-hmm. le sénateur Amadou Barry de par sa vision de par les les PME on va renforcer et accompagner ces calebasses là en GIE et en, en, en, en formation par rapport à leurs activités. Mm-hmm. c'est pas histoire de les réunir les mercredis ku nekk nag dem sa yoon noonu non loolu dafay jeex Kër Massar parce que loolu du du rentabilité. du mm-hmm. rentabilité donc ça fait partie des projets phares de du sénateur Amadou Amadou am na solo mais yéen seen euh, programme yi yaar yëpp am na euh, problème boo xam ne vous pas soulevé xaw ma ndax daa bokkul seen programme Kër Massar tout le monde est commerçant te kenn amul cantine ñëpp ci mbedd yi la jaar anarchie boobu. waaw loolu loolu c'est pas un problème loolu xam nga. tey mi ngi ci programme bi wala mi ngi ci mi ngi ci programme bi xam nga la encombrement bi encombrement bi on va pas faire la fine bouche. Mhm. suñu waxee ne waaw on va laisser comme ça comme comme tel elle dañuy nax population bi te nous sommes pas pour pour pour pour pour caresser les gens non nous sommes là pour dire aux gens mm-hmm. venez on va travailler Kër Massar travailler Kër Massar nag day tax ñuy xoolante ci bët waxante dëgg du ñu nanguti mu am anarchie mu am encombrement mais du ñu leen jëlee jëlee foofu tamit si sànni leen mbalit non on va les accompagner il y a tellement de niches à Kër Massar man sama commune laa mën wax muy commune sud où c'est 500 mhm. mhm. contrairement à Mamadou Samb à mhm. sax bëggoon naa ci wax ci par rapport ak découpage bi bien vrai que passé na mais dafa dafa dafa dafa dafa équitable dafa am déséquilibre par rapport à ce à ce découpage là parce que moom fi leaderam dëkk muy gis gendarmerie man la gën a jege que Kër Massar Nord tout à donc loolu sur le plan politique peut-être. mu jógee foofu sax dem. waaw représenté madame le maire la salue de passage li muy ut yàlla na ko yàlla may. parce que parce que aussi il faut dire les choses telles qu'elles sont. donc pour wax war am encombrement bi ak marché bi on a prévu de les de les de les loger quelque part là je vais pas vous dire ça parce que euh, li ma la wax rek. Mm-hmm. campagne bi jeexagul. Mm-hmm. keneen da koy jël utiliser ko. ñaar fan gis nañ ay niche ay niche am nañ ay bët on a sillonné les cinquante et un quartiers de Kër Massar. Mhm. suñu daal daal yi dañoo dox ba dagg nit ñi du ñu ko tooñee sax. Mhm. mais c' pas parce que on manque de moyens non. Mhm. c' est parce pas du tintamarre. manque de moyens bokk ci. noo xaaral ñun nous sommes avec la grande coalition Gëm sa bopp ak Bougane Gueye bi Bougane di ñëw foofu le mardi dafa mel ni excusez du terme dafa mel ni le président de la République moo doon ñëw. ce qu'on a ce qu'on a ce montré en termes de voitures en termes de logiciels mm -hmm. mais c'est pas le plus important mm -hmm. les Massarois n'ont besoin de voir de belles voitures non je suis désolé les Massarois ont besoin de programmes les Massarois ont besoin de de, de proximité ku leen jege ku leen wax moo tax sénateur Amadou Barry gaare oto yi Ismaïla mhm. oto yi ne nañu dox dugg këroo jaay leen candidat bi jaay leen projet bi jaay leen mairie bi jaay leen programme bi mhm. yemul ci loolu bi ñu defee loolu ñu ne léegi gis nañ cinquante ans kat dox nañ gis ne fii ak fii ak fii ak fii mën nañ fa jëlee euh, marchand ambulant yi dugal leen fii marché bi c'est un c'est un goulot d'étranglement waxuñu dañ koy toj dajji ko mais dañ koy réfectionner ba mu nekk benn marché moderne parce que marché bi sunu sunu jabar yi bu ñu demee marché ba ñëw da ngay yaakaar na sax est-ce que amuñu ay ay ay ay ay maladies yoo xam ne dañ ko contracté ci marché bi parce que marché boo xam ne amul toilette marché bi amul toilette man des fois j' dama yërëm suñu jigéen ñi dugg ci marché bi parce que j'ai fait deux fois la proximité dans dans le marché mais j' étais sidéré dama ne est ce que ñun Kër Massar lañ dëkk donc par rapport à ces niches là. marché bi kay ñu ngi ci biir kër yi. par rapport ak niche yi. prévoir nañ fa prévoir nañ fa ñëpp ay commerçant lañ. prévoir nañ fa aussi c' est pas les ambulants seulement qui font qui ont qui sont source de cet encombre c'est des frères c'est des Massarois kenn mënu leen jël yóbbu leen ba ba sànni leen non dañ leen di recaser mais fi ñu leen recaser ñun on a vu les sites et on a mis l'accent là-dessus au moment mhm. bari au soir du 23 janvier bi ko yàlla joxee. ndam incha allah merci Malang naa ñëwaat si yow yéen daa mel am ngeen programme côté boobu. Euh, commerce bi madame la ministre donc euh, en tant que candidate de la coalition Benno Bokk Yaakaar en même temps ministre du commerce. mu nekk ku xarañ ci domaine bi nga xamante nekk na ci bokk na ci projet bi ah. euh, mu bokk ci parmi les soixante mesures phares. commerce domaine am la. waaye domaine am la parmi les soixante mesures phares mu wax ci un marchand ambulant une cantine comme ni ko mon collègue Sané waxee rek donc euh, marchand ambulant yi donc euh, ci ñi dañoo nekk suñu ay frères. di doon ay jàmbaar di xëy di liggéey donc nag taxawu leen dafa am solo. Mm-hmm. un marchand ambulant une cantine benn hypermarché des produits locaux. loolu si prévoir na ko ci parmi en tout cas les soixante mesures phares yi nga xamante ni ci biir quinquennat bi bëgg na ko bëgg na ko taxawal. Mhm. parce que tamit les produits ko nekk na lu am solo. d'ailleurs récemment lañ doon def benn cérémonie par rapport à la consommation locale donc madame le ministre loolu nekk na lu ko soxal lu ko itteel. Mhm. am na tamit modernisation des marché de Kër Massar. donc loolu yëpp bokk na ci yi nga xamante ni vraiment moom dëxëñ na ko waaye ci gàttal rek madame le ministre. côté commerce bi jël na ci ay mesures am solo yoo xamante ni buñ ci yeggee waa Kër Massar daanu xam ni waa Kër Massar Nord daanu xam ne wax dëgg yàlla am nañ commune bu bees commune boo bu doon référence commune boo xamante ni euh, bu buy bépp commune di en tout cas na ma am mhm. d'ailleurs moom émergence communale la wax mhm. parce que tamit réew mi mënul émerger tant que communes yi amuñu émergence pour que réew mi am émergence il faut que les communes soient émergées aussi bu commune yëpp amee émergence réew mi tamit day gën a mën a dox moo tax wax dëgg yàlla vraiment di rafetlu taxawaayam am na tamit benn bu am solo benn unité en tout cas intégrée de transformation céréales mhm. boo xamante ne bëgg na ko bëgg na ko taxawal ak une mise en place d'une structure microcrédit mhm. et facilitation d'accès au financement innovant mhm. wax na ko les femmes jigéen ñi ay jàmbaar lañ moo tax dañuy sant yàlla ba ñu amee une candidate femme sànq ma nga la koy wax laata ñu dugg fii ma ne la borom musóor yi ñoo soxla te moom dafa nekk ci kenn ci borom musóori koo xamante ne jàmbaar la c'est une dame de fer mm-hmm. une travailleuse hier elle faisait le lancement de son livre d'une rive à l'autre mu bind ci lu am solo livre bi mu bind ci tout son parcours sa vie professionnelle tout son parcours sa vision politique mu nekk livre boo xamante ça, sa sa résume sa personne en tant que de di ci lancer un appel ak toute la jeunesse. di wax ndaw ñi ñu gën a am taxawaay. ndaw ñi ñu gëm seen bopp. ndaw ñi bu ñu bëgg lu yomb. Mhm. nañu góorgóorlu di liggéey ndax dara xëyul sotti. am na solo waaw donc ah, daa mel daal yéen euh, programme yëpp macha allah kon mhm. daal kuñ ci élire rek bu dee respecté na programme bi ni mu ko waxee Kër Massar mën na changer. Euh, ñu ñëw ci violence yi euh, le choix de Benno ak Gëm sa bopp c'est pas un hasard ma tànn candidature représentant Benno euh, mu mel ni yéen fu ngeen tase Benno caravane Benno Bokk Yaakaar fu mu tasee caravane Gëm sa bopp rek xuloo xeex dina am. xeer di sànnante non non dama lay dàgg de. non je de la politique politicienne. non mais violence dafa bëri te du Kër Massar kese. xaaral ma ñëw waaw am na am na Mbour. am na fépp. avenue Lamine Gueye feneen ak feneen non en fait je veux gëm sa bopp ak Benno dafa fës. waaw ñu de au niveau de Kër Massar parce que ku nekk rek xam nga temps yi kenn amul jot parce que ba ci football bi sax ñu ngi naan euh, président bi demul demul demul Bafou Sam ndax de mi ngi campagne man ndax nañ ma baal des fois ma parent yi nañ ma jégal des fois ma daw jàng parce que maa ngi ci campagne. Euh, li mën li xew Kër Massar Sud rek laa mën a wax. Mhm. dinaa nag jël def revue de presse ñu relaté mais. euh, la presse que je respecte beaucoup, vraiment, mm des fois aussi, est-ce que c'est une pointe d'interrogation Mais la violence, c'est c'est avéré. mais ñun dama ne ñun ñun ñooy la seule coalition à Kër Massar Sud bu ñu ànduñoo ak nervi ànduñoo ak garde corps je répète ànduñoo ak nervi ànduñoo ak garde corps suñu kër leader amul xaj. <laughs> da nga ñëw rek dugg parce que pour pour dire quoi pour dire que sénateur Amadou deful dara Kër Massar loo xam ne war na dox ànd ak garde corps wala garde rapproché wala nervi parce que ñun bu ñu tasee candidat man cellule de communication maay woo sénateur Barry woo candidat X ñu taxaw ñu jël prise de photo samedi qu'est-ce qui ma romb ci marché bi romb benn benn candidat excusez de de de ne pas dire ak ay ñooñam. ñaar ci ñoom xàmme ma ne ma kaa ñu fotow ak ak seen daam ñu fotow daañu qu'est-ce qu'ils ont fait posté ko sur les réseaux sociaux. mais loolu mooy un gros poisson. pour man pour man c'était alors que man c'était juste pour leur montrer que ñun ñoo ko mën defar keneen du ko defar Kër Massar saar la au soir du 23 janvier Kër Massar Sud aura un seul et unique un seul maire. du nekk ñaari meer du nekk ñetti meer donc animosité bi jaru ko violence bi jaru ko xeex beeg xuloo bi jaru ko kuy def cortège boo tasee sa morom jëlal beneen yoon bàyyi ko mu jël beneen yoon parce que kenn mënul jeexal Kër Massar on a sillonné cinquante et un ñun ñi nga xam ne amuñu dooruñu oto sax si yoon nañ ko ak suñu tànk donc réyul commune bi réyul li ma ciy déplorer rek mooy affluence autour des candidats 16 candidats pour 500 kilomètres carrés c'est trop ñii 1500 1500 kilomètres carrés lañ 13 candidats lañ am et les candidats les plus euh, aguerris politiquement sont au niveau du nord mais ñun ngeen baal ma béy bu jóg rek bëgg nekk candidat mais qu'ils arrêtent qu'ils arrêtent qu'ils arrêtent c'est pas c'est pas par respect à la population de Keur Massar Sud bu nekkee yow silifa nga dëkk nit ñi dañ la war a jox cër xam ne intellectuel nga dañ la war a jox cër xam ne yow ci nga bokk mais il n' est pas normal que on ait plus de seize candidats voilà merci li ñu desel li ñu desel on a plus que six minutes question yi des na. mais euh, violence bi moom am na parce que. yaa ngi gis am na Mamadou. oui donc euh, fi nga nekk au niveau du nord sud dégg ma violence. ah sud bi presse bi relaté na ko démb nord Moussa Camara ak Assom. Sylvie Sylvie Mamadou excuse-moi euh, Sylvie lire nañ bi démb revue de bi yëpp. Kër Massar Sud. <laughs> je, je je précise bien Kër Massar Sud la indexé du doigt la violence bi dafa feeñ bu baax a baax a baax may ñaan candidat yi ñu revenir à de meilleurs sentiments. kan lañ ca damm. <laughs> Ah, kon yow liir nga man de waxuma man de waxuma man damay bañ ñu ne maa diffamé waxuma de. donc man. Euh, xam moom xam na kon Mamadou. Euh, voilà daa bañ a wax. <laughs> merci euh, nekk na point bu am solo boo xamante ni dañ koy déplorer waaw ñëpp koy déplorer la violence. Mm-hmm. ndax. li am solo li askan bi di xaar mooy le projet municipal du candidat mooy li candidat bi nar pour askan bi loolu moo ci am solo euh, li nga xamante ne moo ñu soxool ñun en tout cas euh, waa benn bokk yaakaar commune Kër Massar Nord ànd ci ak sunu kilifa di sunu candidate di madame la ministre Assome Aminata Diatta wax dëgg yàlla ñun kenn xamewuñ ci violence musuñu ko doxee musuñu ko waxee. mais da ngeen tasee caravane Moussa kamara eh, da may bàyyi ma continuer xeex am na fa. voilà may bàyyi ma continuer te madame la ministre Assome Diatta musu kenn musu ko dégg di wax lu ñaaw. Mhm. kenn musu ko dégg muy wax loo xamante ni wax dëgg yàlla lu jéggi lu doy waar la. Mhm. te musuñu sant lu ñaaw ñu koy def. Mhm. ku ko xam xam ko ci yar ci dal ci teey ak ci maandu. madame le ministre ku maandu la. ñun tamit ñu nekk ci ginnaawam doon ay ndawam tamit fa mu ñu teg foofu rek la ñuy tegu. mosuñu sant violence. maintenant par rapport ak li nga xamante ne am na gis nga Kër Massar Nord am nañ candidate candidate laay wax ci télé laa nekk candidate bu dugal ojo naan day taal asom ak ci biir otoom candidate. candidate. la kër non non du fi nekk bu ma waxee ga dañ xam dañ xam. mu naan dee taal asom ak otom sud la nekk wala wala non non fii lan moo <laughs> dama ne wuy ma dama ne lan moo gën a garaaw loolu léegi nag li may wax rek mooy buñ la buñ la poussé nag ba nga sës jusqu'au bord du mur mënoo mhm. def lenn lu dul résisté munoo def lenn lu protéger sa bopp nga résister parce que tamit doo toog rek vraiment nit ki naan day dalay def nag su noonu. Mhm. waaye ku xam maa ngi ñëw. voilà mhm. ku xam madame la ministre xam ko ci jàmm. Mhm. xam ko ci ci ci ci ci ci dialogue xam ko ci consensus xam ko ci ci partage ñun jàmm la ñuy doxee jàmm la ñuy woote te loolu comportement boobu la ñu am. waaye nag duñu tooñ. du ñu tooñ du ñu saaga ndax suñu kilifa santuñu loolu. waaye nag jusqu'au bord du mur nag il faut que aussi parfois aussi nga mën a protéger sa bopp. Mhm. en tout cas di lancer un appel rek à tous les leaders tous les militants tous les frères et mhm. que ñu xam ne mbir mi c'est entre nous. c'est au sein d'une même famille massaroise mhm. kon nag jàmm nañ koy doxee nañ koy waxee nañ koy ñaax ndaw ñi bañ bàyyi tamit di fay ay nit. pour ñuy attaquer benn cortège di sànni di fay yaa am na mhm. di fay ay nit comme ça ay jeunes nga leen ngay génni xaalis bu weex tàll fay leen demal nga karal ma cortège bee nga def fa naka su noonu mais hmm? loolu ko ñan ñoo koy gën faral di def du yéen. ñun. waa Benno. non jamais Benno Bokk Yaakaar dafa nekk benn coalition boo xamante ne dañu civiliser. am na solo dañu civiliser une dernière question on a plus que trois minutes euh, euh, mode de scrutin bi noonu lañ ko gisee changement vote yi euh, bu njëkk gisoon nañ vote ni mu demee léegi raw gàddu la tey Assome bu gañee benn voix kii moom moo gañee noonu lañ ko gisee rapidement ñu clôturer waaw loolu am na solo am na solo parce que lii élection gox la mën nañu wax ne sa nawetaan mm-hmm. ku nekk sa koñ la ki nga xam ne dafa am 500 kee am 500 deux voix wala benn voix moom moo gañ li wax ci mode de scrutin bi sax avant ma ci dugg. Mhm. di wax masarwaay nañ dem jëli seen carte d'identité. Mhm. parce que Kër Massar département la. Mhm, carte d'identité yu njëkk yi. mais là-dessus je pense communication bi des na. Eh, loolu nag ñoom la de. des na de xam a dem voter. waxuma sax moom mm. naa ne moom. waaw les deux sont non ASOM n'est pas nga yow sama frère nga. <laughs> te bokkuñu bokkuñu arène. Mm-hmm. bokkuñu arène donc on n'a pas de problème te bu ñu bokkoon année sax du ñu problème parce que nous sommes deux hommes intègres et civilisés. Mhm. parce que nee la man libéral la et que mhm. waaw je je suis comme à visage waaw. Mhm. découverte humaine. dama ne ne Massar waaye dem jëli pièces yi. pièces yu njëkk yi euh, département des ñaay moo ci nekk ñu ñu nekk sud suñu pièces yi euh, dépa arrondissement Jaxaay Parcelles Assainies moo ci nekk. donc carte d'identité yooyu baaxatul dañ dem joxe bi ñu yoroon ñu jox leen bu bees. jox ñu jël seen pièce d'identité mi ngi nekk ci 36 37 pour cent. ça veut dire que. néew na trop parce que dañu nar a jëm élection kii kay sax peut-être du am du am 30 de voix. beneen bi beneen bi mooy ñaari vote moo am. Mm-hmm. dafa am euh, élection président conseil départemental bi mooy sii si. Mm-hmm. am élection bi nga xam ne mooy commune bi da ngay jël xob yi ba pare. yu njëkk bu njëkk six xob ya bëri waaw six xob yi dem voté ji pour département bi mooy merci ma une minute moo ci des ma jox Mamadou Samb nga tontu ci laaj boobu rek waaw laaj boobu li ma ci après nga daal di tàggatoo merci euh, li ma ciy tontu rek mooy euh, comme ni ko Sané waxee euh, c'est vrai communication bi desoon na parce que beaucoup de Massarois ne savaient pas que seen carte dañ leen changé mhm. waaye am def nañ ci liggéey bu am solo ci ay caravane de sensibilisation par rapport ak ñun fi ñu fare ñun wax dëgg yàlla ñu ngi amal ba tey jii nii ñu ngi amal ay caravane de sensibilisation dem euh, yëgal askan wi que seen ay carte dañ ko changé kon carte bu njëkk bi mënatul voté mm-hmm. boo bëggee voté il faut nga dem yóbbu carte bu màgget bi mm-hmm. ñu jox la bu bees bi ndax Kër Massar département bu bees la mm-hmm. boo xoolee si ginnaaw ñu ngi ci def département de Kër Massar noonu ngay def pour nga mën a am sa carte nga mën a voté loolu ñu ngi ci et j'espère que euh, Euh, mën naa wax ne aussi gars yi ñu ngi dem jëli seen ay carte xanaa di leen di ñaax rek. Euh, li des bëreetul. ñaari fan ñu fexe mën a mën a se mën a dem jëli seen carte yi. Mhm. voilà am na solo ma euh, nga tàggatoo. waaw tàggatoo bi moom damay njëkkee rek d'abord di la sant di la gërëm. ci invitation bi di ci kontaan bu baax a baax di la encourager. Mhm. ndax ay ndaw la ñun ñëpp. donc ndaw moom dafa war a am ful am fayda de lëkk yi di nuyu tamit waa Kër Massar Nord yëpp bàyyi ma kenn di nuyu bu baax a baax madame la ministre suñu candidate commune nord di ko nuyu nuyu staffam bi yëpp di nuyu euh, son directeur de campagne El Hadj Omar Ndiaye ñoom Jibi Sarr staff bi yëpp ñoom Sapir Mbaye euh, voilà di nuyu ñëpp vraiment bàyyiwuma kenn di nuyu euh, voilà ñëpp ñoo xamante ñu ngi may suivre ñu ngi may bàyyi xel di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum waaw Sylvie maa ngi lay gërëm di la sant di la nuyu encore une fois di la tiitaroo parce que c'est pas c'est pas donné à n'importe qui nga nekk xale mën li nga def yàlla yàlla defal jàmm donc di nuyu aussi di gërëm sant la grande coalition sa bopp a sa tête la sénateur Amadou Barry di ko ñaanal suñu borom le soir du janvier yàlla porté ko à la tête de la magistrature suprême mu nekk mhm. maire Kër Massar Sud mu nekk njariñu askan bi di wax waa Kër Massar mhm. Massar waa Massar waaz mhm. Kër Massar ñun ñoo ko moom kenn duñu ko defaral mm-hmm. nañu voté utile mm-hmm. nañu voté utile balaa ñu fi souffrir encore cinq années de de de, de mm-hmm. nag mooy xool le bon profil xool le candidat meilleur. nga jox ko waaw mu bañ am violence mu bañ am animosité. merci beaucoup Malang euh, Sané Gëm sa bopp Mamadou Samb benn Bokk Yaakaar ma leen di sant di leen gërëm seen teewaay ak seen déplacement di gërëm mbooleem déglu déglukat fu ñu doon bàyyi xel ci rajo bi ak euh, ñi nga xam ne ñoo doon suivre ci Facebook bi ak euh, ci euh, suñu. Euh, YouTube bi euh, di gërëm Léon mi féetoon ci technique bi ak Malick fële ca régie bi mbokk ñun dig daje euh, mercredi bi ñëw même heure même fréquence beneen thème ak yeneen invité